salaamaaleykum à toute la population sénégalaise maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant foo mën a nekk si àdduna di def cette vidéo juste pour un petit rappel ku ne xam ne ne ñu ngi traverser un moment compliqué un moment très difficile mais euh, di sant yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamin et di fàttali sama mbokk yi que ne coronavirus ça existe réellement te mu ngi jël ampleur mu ngi dox mais ensemble ñu ñoo gën a fort corona di wax na yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla sàmmuñu mais juste aussi la santé elle est trop importante dans cette vie donc suivons les instructions yi nga xamante ne moom la ñu les spécialistes di jox raxas leen seen loxo muy tout euh, contact yi entre nous et qu'on se protège entre nous aussi képp koo xamante ne ressentir nga les symptômes mu ngi lay sonal nga dem si hôpital bi ñu gën a jege et au SAMU yi comme ça ñu consulter la. et di masaw coono aussi ñi nga xamante ne virus bi dugg na leen mais taxul dara dal leen aussi jàpp leen ne virus mun na dugg nit mais n'empêche euh, mun nga si génnaat juste faut qu'on garde la tête tranquille ñu ñëpp ñu calme te jàppalante suñu biir yàlla dinañu suturaal defal ñu jàmm feebar bi génn si euh, génn fii pour de bon et qu'on continue nos activités incha allah maa ngi leen di masaw coono di leen nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant soyons vigilants le corona existe Rock Family